ànd ak sëñ Cheikh mi di doomi sëriñ bi ñëw fii jot la kàddu sëñ bi Fall Modou Mbend moom Cheikh Fall akub cantam ndax bi bii bi nga koy taxawal bala ngaa def dara baa nga yëgal ko kenn kenn da ngaa ñëw ba ci sëriñ bi waxtaan teeg moom daaw ak ren ji yëpp bala ko kenn di yëg wala kenn kenn di ci xam dara da nga ñëw ci sëriñ bi nga laaj ko ndigal doo ko yëkkati kon sëriñ bi xam na loolu Fall ndax bis bi day moom rek nga koy defal bisu Cheikh Ibrahima Fall la ba ko sa waajur di def di ko def ca Tiwaawan jóge ko indi ko fii ci Touba yaakaar nan ni yokku nga ko nag wàññi woo ca dara lépp lu ko sa baay doon defee rek def nga fukkam loolu ñii ko fekke fekke bii xam nañ ca dara kon nag fa sa baay jaaroon tànkam boobee jàmbaar la woon lool waaye Fall yaa ngi ca tànk ci sëriñ bi jaar nga ca tànkam bi nag sëñ Fall ne ñu ngi lay sant ci kaddu sëñ di la gërëm nu nag danoo bokk lépp noo bokk ndey bokk baay ndax sa waajur ak sa waajuram ñoo bokkoon benn benn lal ca mbar moom mii sëñ Fallou Mbar keroog mu nga gane àdduna nu di ko tudd sëñ Bass Fall alxuraan sa waajur wa ak sëñ Modou Aminta Fall ñu ànd tudd si ko moom mii loolu sëñ Bass Fall wax na ko waxati ko yoon yoon moom ak waajuram ba ñoo bokkoon benn néeg nekkoon cambar yow mii nu bokk nag njàkkar ma jéey nag bokk lu ne kon nag bis bi suñ bisu bopp la ci lan bokk ndax suñ bisu faal ci boppam moo ko nu ko a ah fàllu maak sa baaye woon kon saa bis ba ci teewoon dee ca ñëw loolee nag moom lay topp ba tey jii ginnaaw bu yónneen sëñ bi jàllee ba noppi nag man sama jëm bopp fàllu mbar sëñ bisu faal ci boppam da daan ñëw di ma yëgal bis bii mel ndey sama morom te sama waajur sama baaya loola man tam maa ngi koy topp ba tey jii bu loolu jàllee nag maa ak yow mii danoo bokk ndey bokk baay kon nu ngi ñaan ci dooley Cheikh Rafal seen maam loolu seen Mbàkke Faal sa maam ja ak seen Mbàkke mi ngi ko tudde yàlla na sa fan gudd lool Faal bis bi yàlla na ko yàgg a taxawee dina yàgg nag Faal dana yàgg de ñoo ko koy ñaan ci doolay Seex Faal sëñ bi Faal tam loolu la lay ñaanal ko amub yar nga ko amub yëngu ci nit ñi nag kon nag ñu ngi ñaan ci doolay Seex Faal seen maam yàgg ko taxat yu dina yàgg nag dina yàgg lool Faal ñoo la koy ñaanal yàlla ci daraje Seex Ibrahima Faal jërëjëf Faal jërëjëf sëñ bi daa mel ni sëñ bi dañuy moom day nee na dañu la canta ngërëm rek di ko delloo sëriñ bi ndax sëriñ bi xam moo la fa yabal yow mii ñun ñoo war a jóg dem fekk ko fa mu toog ndax li ñuy def ki mu yónni si woon démb rek ndawal ga nee naa ko li nii ñoo ko war a jiital yóbbu ko yóbbu ko sëriñ ndax li def kat moom lañ koy defal bis bi moo ko moom bu no tey tey na fi am tey jii ñaara ñett dootu ko dégg ci àdduna kon loolu alalama lin fii def sëriñ bi na moom rek faal moo ko moom defal nu ko kenn faal sëñ bi ba mu yëkkati bis liggéey ca maam Cheikh Ibrahima Fall moom rek la wax danaa wax naan ndekk yi ma ciy togg ndi ko jot waa kër Xaadimu Rasuul yi loolu mooy màggal gi dama ci liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall liggéey ma liggéey Cheikh Ibrahima ma ji leen ko yët kenn kenn doyu ma ci maa ko taxul sama bopp kon loola bu ko waxee Seydou Fall moo demee na fi tey jii moom Fall moom moom bis bi nag mooy borom bis bi nag mënoon nañu ko bàyyi yoonu kenn kenn dur ci ne ndax alalam rek la ñuy sàmm kon ni nga koy sant Fall at mu jot it teraanga yi muy yónnee wax yoon tarka defar na bis bi xam nañu fii moom lañ fi nekkal moom rek lañ fi nekkal ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla ci doolay Cheikh Fall ñu liggéey bi mu liggéey liggéey bii mu ko liggéeyal maam Cheikh Rahima Fall yàlla na yàgg ak moom Fall te ànd moom sëñ Fallou Mbar yow sëriñ Gunda ne yow danga ngay de ne li nga wax léegi nii yéen a bokk ndey bokk baay li wér na loolu ay wax. nee dañ ko def suñu diggante yéen ñaar waaye sa waajuram ak sa alxuraan kere baa ko jëkkee teg bët booba ko sëñ Basiru Faal ga ca paaleen ma jóge Mbàkke ñëw fa nag di nekk néegum ñax boobu ñoom ñaar moom sëñ alxuraan kii tëdd jëm nii kii boppam jëm nii kii boppam jëm nii boo jaaree ci permis sab takk ne day dugg ci biir néeg bi mbaa jaa sëñ bi ne ah kooku man ko mën a kere laa jëkk sëñ Mbàkke Fall moom sëñ Mudu Fall Mbenda ñoom ñaan na ba sëñ bi daa ma nuyoo leen moom néew nuul sa baay loolu yàgg na lool kon loolu moo xamal ni mos na tàggoo benn benn kon daal sëñ bi noo ngi sant bu baax Fall sunu kilifa nga de ci lépp nag waaye jaxasoon ci lu bari lu nekk mën naa la ko wax waaye nu ne mën nga ma ko wax. may nga ma sa bopp may naa sa bopp mbokk na njëkk njalu yàgg yàgg a jaxasoo fa loolu yàlla def na ko ñu ngi sant rek yi sëñ Cheikh Fall ak sëñ Cheikh Baye Fall yi nga àndal suñ xol seet na ci ñoom jataay bi bu ñu agsee ci bis bi day mel ni lépp jag na waaye bu ñu gisagul day mel am na lu bari bari lu manqué nag kon nag jërëjëf Fall tarkalla jërëjëf nan tàlloo xëy sëñ bi ñaan bu noppee nu may délégation bi monsieur le maire bi bàyyi ko mesare mag fi sëriñ Sidi Dieng moom Cheikh Nar Dieng nee dafee yàgg lool bari lu war doxi nu ñaan rek ne nu nga ñaan rek Fall nee ñoo ko bokk yow a ko bokk nee na xolam sedd bu baax ndeysaan jërëjëf Dieng yal na yàlla guddal fan wi yéen bokk bokk bokk parce que bokk yéene Dieng